tali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo giraawal yi amatina ci liste benn bokk yaakaar bi ginnaaw néeg bi ñu ëppalee ay parrain comme li ñu dàqe woon Malick Gakou ci atum 2019 am na geneen njombe goo xam ne benn bokk yaakaar def nañu ko ci seen liste nationale bi journal bi de la Soleil l'Observateur le Quotidien Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Déthié Fall nee na liste nationale bu benn bokk yaakaar bi respecté wuñ li nga xam ne mooy parité ndax 43 à 44 bi ñoom ñaar ñëpp jigéen ñoo nekk te code électoral bi dafa am loo xam ne daf ko may sañ-sañu mandataire yi ndax code nee na mandataire bu nekk man ngaa ñëw nag vérifier sa liste moroma Déthié Fall bi muy vérifier liste Benno Bokk Yaakaar bi ci la gisee am na girawali am na ci liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar bi Aminata Touré jiite ndax respecté wul parité bi 43 bi ak 44 bi yëpp ay jigéen ñoo fa nekk 43 bi ku tudd Rokhaya Ndaw moo fa nekk 44 bi ku tudd Maymuna Njaay girawali am na ci biir Bokk Yaakaar yéen kay gii di 24 compétent ñoom waa conseil constitutionnel Khalifa Ababacar Sall moom nag ni ki démb nee na waa Benno Bokk Yaakaar yàlla moo ñu atte ñooma ndax nag yàlla moo aay ci póotam buura yéen a kaay gi di source Ousmane Sonko moom nag nee na amul lenn dara amul lenn loo xam ne mën naa sauver ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar mbir mi kay jeex na c'est fini julli tubaab bàyyi bàyyi kàddu yi Ousmane du battre campagne Aminata xam ne moom nee na lépp moo ko xama waaye nag lii nag mënut a muusa ka daal moo am ci réew mi Déthié Fall nee nag liste benn bokk yaakaar bi dañu koo war a ci ni mu gën a gaawee journal bi de la Soleil Benoît Sambon nee na tamit am na fukk ak juróom ci ay liste yoo xam ne yeewu askan wi ci département yi ñoom tim respecté li nga xam ne mooy parité bi waaye nag Benoît waroon nga andi nag ay preuve comme ni ko Déthié Fall defee yéen kaay gi délibération xëy duñu xibaara ci xën mu njëkk ma nañu Déthié Fall xotti na benn bokk yaakaar bi yéen kaay gi di Sud Quotidien gi diggante benn bokk yaakaar Malle Mbodjum Kane yéen kay gi xëy di ñu xibaar naan ñoo en tout cas li amba de sala mooy recours yi nga xam ne waa coalition Yewwi Askan Wi yóbbu woon ko nag ca conseil constitutionnel ak bu Bougane Gueye Dany bi tey jii la ci waa conseil constitutionnel maanaam di yëy di yàbbi yéen kay gi di Wal Fadjri mu xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag dañoo bëgg a invalider liste Benno Bokk Yaakaar bi ndax nee nañu respecté li nga xam ne maanaam mooy parité ñoom Khalifa Ababacar Sall ak ñoom Déthié Fall Aïda Mbodj Ousmane Sonko bi fi nekk waaw di noppi di wax ndeke yoo ñoom ti ma maanaam ñoo ngi ci njombe goo xam ne musiba ma bokkumba la yéen a kaay gi di wal fajiri nee na Sonko niki démb mu nag da doon ki nga xam ne mooy Aminata Touré Aminata Touré mi jiite nag liste nationale benn bokk yaakaar bi Sonko nee ko tata mimi nee na nag moo xam lépp waaye nag bii moom mënut a sauver nag Macky Sall ak lu mu accéléré accéléré ba tey ci journal bi di Vox Populi Ousmane Sonko nee na bokk yaakaar na ak seen i maanaam bu leen neexe xex-xex leen reetaan leen danañu battre campagne ci nii wala ci naa Aminata Touré nee na bëgg bëree bañ bëree yéen a kaay gi di l'info nee na la remontada da yeewi askan wi yéen a kaay gi di 24 heures ñi nga xam ne nag ñooy waa benn bokk yaakaar ñoo ngi ci ay giraawaal yi ñoo ngi ci ay njombe ginnaaw benn bokk yaakaar ñoom bu nu waa Samb ak Aminata Touré bi ñu defee ay giraawaal yi ëppal ay parrain ñu ne déeta waay respecté wuñ parité bi ñaari jigéen ñoo xamante ni ñoo toppalante 43 44 ay jigéen lañu kenn ki nag ndaw la tudd kenn ki Maymuna Njaay liste boobee c'est fini julli tubappa yéene kaay gi dalee ko bàyyi mbirum politique mi yóbbu ñu nag ca diwaano Pikine mbir mu doy waar a moo fa xew ni ki dem ba benn xale bu jigéen bu tudd Fatou Kiné Gaye lañ fa rey am multi service la yoroona dafa wannoon lor ba toll ci juróom benn weer lii ñaaw na loola yéene kaay gi de Libération nee na mbir moo xam ne ñaaw na ba jéggi dayoo diwaano Maroc Casablanca journal bi nee na benn xale bu jigéen ab sénégalaise la Fatoumata Baldé la tudd kookee nag jëkkëram moo ko rey moo ko jamate ay paaka ba ma sedd guy ci kanamu xalem yi ci kanamu doomam yi yéen a gi di star xëy dañu xibaar naa ñu tey la tey Angleterre Premier League sa championnat ba journal bi nee na Manchester City benn point rek la rawee nag Liverpool tey jii la Manchester City di laale ak Aston Villa waaye nag Manchester City bu jéemee nul wala ñu jéem koo gagné na ko leer na ñàkk na li nga xam ne nag mooy championnat bi ndax benn point rek la rawee Liverpool te nag Liverpool moom tim tey jii lay laale nag ak Wolverhampton Sadio Mané nee na ba léegi daal yaakaar am na yéen a kaay gi xëy dañu xibaar naa ñu ca Angleterre ba tey diggante Tottenham ak Arsenal tey la ñuy xam diggante diggante Tottenham ak Arsenal ñaari club yii ban moo ci dem liggéey des champions